directeur général bu CETUD ngir amal benn opération ñu ngi koy tuddee des désencombrement li ko waral mooy CETUD euh, dafa bëgg tàmbali tàmbali na ko sax fan yee euh, incha allah dañoo war a ñëw nag géejawaay maanaam defar lu ñuy tuddee ay essai euh, ci bus rapide transit yi nga xam ni moom la président de la république amal mu nekk projet bu ama am solo essai yooyu pour ñu def ko il faut ñu raxas yoon wi yoon wi nga xam ni foofu la bis si war a jaar mais malheureusement dañoo constaté ni am na ay occupation yu bëree bëri maanaam façon bu ne daal gis nañ ko fi gis nañ fi ay cantine gis nañ fi ay table ay oto ay euh, atelier mécanicien ak ñoo xam ne dañoo tabax ba tabax euh, trottoir bi ak yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp biñ ko constaté ci la gouverneur ni balaa ñuy lancer opération il faut nag ñu sensibiliser ñu ñaax askan wi ñu libéré euh, voie bi ci noonu ci la defee communiqué communiqué boo xam wax dëgg yàlla euh, yaatu na lool siiwal nañ ko ginnaaw communiqué man mii jël naa sama tànk euh, jóge préfecture ba case bi di wax ak askan bi pour ñu jógee fi ñu occupé balaa ñuy ñëw ak sunuy engin donc tey ci guddi gi ci la ñu ñëw tàmbali nañu opération bi ci jàmm ak salaam am nañu yaakaar bu baax ni dina egg ci jàmm ak salaam. waaw loolu dina am incha allah ndax euh, dèjà bu ngeen fàttalikoo ay fan ca ginnaaw kilifa gi di ministre de l' intérieur euh, annoncé woon na dina sos benn brigade spéciale boo xam ni li ko tax a jóg lenn la rek mooy saytu. kaaraange ak circulation bi ci BRT bi donc loolu bu amee mën nañu am njort ni soob yàlla kenn dootu fii def benn installation boo xam ni méngoowut ak li nga xam ni moo tax a jóg euh, euh, voie yi waaye dama wax ni li gën a am solo mooy maanaam taxawaayu askan wi ci boppam kenn ku ne dafa war a xam ni xàll wii di BRT maanaam kenn mënu ko aakimoo li ko tax a jóg du du jaay li ko tax a jóg du euh, stationnement li ko tax a jóg du ay garage mécanique lenn kese moo ko tax a jóg moo ñu xàll aw yoon wu yaatu wu libre boo xam ni bus yi rapidement dañuy dem ñëwaat du am embouteillage du am benn gàllankoor donc suivi bi nga xam ne moo ëpp solo mooy askan wi ci boppam donc damay profiter ngir ñaax leen ci loolu ngir ñu xam ni yoon wi bus ñoo ko moom kon bu ñu nangu kenn di ca teg loo xam ni méngoowut ak li ko tax a jóg kon euh, askan wi euh, comme ni ko tubaab di waxee la balle et dans le camp ñoo ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di encourager bu baax a baax kilifa sétude yi nga xam ni euh, projet bi bi ko kilifa gi amale ba tey ñu ngi ci xar seen tànk tubéy def ci pas-pas ak paste bu mat sëkk ba mu toll fii ba ñuy wax naan suba ak ginnaaw suba incha allah lañ koy euh, inauguré kon euh, gàcce ngaalaama ñoom defal nañ def nañ ci wax dëgg yàlla liggéey bu am solo bu mucc ayib boo xam ni askanu Sénégal yëpp gis nañ ko. waaw dama fi ñëw tey li ma bëgg njëkkee mooy euh, remercier monsieur le gouverneur de la région de Dakar moo annoncé woon ne dinañ tàmbali test BRT bi. Euh, essais yi nga xam ne mooy waajal euh, exploitation bi ñu bëgg fin décembre exploitation progressivement nag lay nekk euh, mais loolu pour ñu egg ci dafay laaj ñu ànd ak préfet Dakar Guédiawaye ah, waaye dañ koy yaatal ànd tam ak population yi nga xam ne ñu ngi ñuy gunge boobu ba léegi pour essais yi ñu def ko ci ay conditions yu mucc ayib def ko ci ay conditions yu mucc ayib nag mooy population bi nangu ne investissement yu toll nii bu ko Sénégal di def euh, te gouvernement bi def na ci ay jéego yu ama am solo ndax lii am fii ci berte bii nga xam ne ñu ngi koy waajal ak TER bi euh, boo leen gëstu tuuti xam ne sunu naataango yi yi ñu dëkkal euh, ci Afrique de l'Ouest ba ci Afrique subsaharienne amu fi donc loolu dafa ànd ak comportement yu bees comportement yu bees yooyu nag ci la ñuy woo population bi maanaam euh, ci dëkk ak dëkkuwaay ak ci euh, nan la ñuy considérer espace public maanaam mbedd bi euh, dootuñu nangu rek ñu ne mbedd mi mbedd buur la mbedd mi tamit dañ ko teg ci ay charte charte yi maanaam mooy ku ci nekk war a mën a dox sa soxla dem ak dëkk ci euh, yoon bu gaaw BRT bi dafa indi solution pour euh, yokk koom-koom euh, wàññi jafe-jafe ci population bi surtout fii ci Géejawaay nga xam ne lu ci bëri ci population bi foog naa bés bu nekk transport bi seen ay jafe-jafe la pour ñu dem seen ay xëy dem hôpital dem école donc loolu dañuy ñaan rek population bi ñaar liñ leen di ñaan mooy ñu gunge projet bi ñu ngi koy def daanaka mais ñu yokk ko ci libérer espace yi ndax euh, liggéey bi yëpp euh, ci ñoom lañ koy delloo beneen bi mooy ñu gëm ne Sénégal li muy def fi mu toll nii ci ay euh, jéego pour soppi xar kanamu transport ak soppi réew mi lu ñu nawee la ci àdduna bi yëpp donc loolu dafay ànd ak ñu am pas-pas am gëm-gëm Euh, ku ci nekk rek ne liggéey bi da nga koy def sa liggéey nga nga jàpp ci euh, ci loolu la ñuy woo population bi te am naa yàqin ne dinañ continuer comme niñ ko tàmbalee woon di ñu gunge ba li ñu euh, bëgg ci projet bi yëpp bu neexee yàlla ñu am ko